أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom mu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naaw loolu ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci sunu téere boroom toll ba tey ci suratu nisa di jël tey bi iznillahi tabaraka wa taala ñaari aaya aaya 129 aaya 130 ci suratu nisa bokki jullit yi ñaari aaya yi bu dee am na luñ ciy jële ci jàng du nekk lu dul ñetti mbir bi ci njëkk mooy taazurul adl bayna zawjayni fi lxubbi walwata li ñuy njëkk a jàng mooy dëgg-dëgg dana jafe liy jafe mooy lan ñàkk a maandu diggante soxna yi ci mbëggeel ak ci sëy loolu moom bu yeboo mu leer ci ñun ne ñàkk a maandu dana ci am ñàkk a maandu gi nag fi ëpp fi muy feeñ mooy ci mbëggeel gi di dina am ñeenti soxna wala mu am ñett wala mu am ñaar waaye ci ñoom ñaar dana am kum ci gën a bëgg ci ñoom ñaar dana am ku mu ci bëgg sëyal bis bu nekk ñaar yooyu lu koy waral mooy ñàkk maandu te gi yàlla di wax mooy waral loolu waaye li la islaam sant yow ku góor koo xam ne danga am ay soxna ci sa maandu sharia lim la sant mooy maandul ci lal bi maandul ci lekk gi maandul ci naan gi maandul ci koddaay bi maandul ci dëkk bi dëkkuwaay bi ak nekkin gu rafet lii la islaam wax nga maandu waaye léeg-léeg ci ñun niñ ko waxee woon ci dars bi passé mbooleem tey lu tas këru jullit yi li tas sunu kër yi mooy lu ci ëpp ci ñun ñi la bàyyee ko am jabar nekk ak moom fanweeri at wala ñaar fukki at utaat jabar ju ndaw ci suuf bi nga utee jabar bu ndaw bi di commencé di wane foo féete di commencé booy aye ji naan maa ngi dem ajanaak maa ngi dem kër noflaay ak fii su ma fi nekkee duma am jàmm ak fële laay noflaayoog fee laay nooseeg fële laay demee aljanna loolu moo taal suñu kër yi te li ëpp ci góor ñi loolu la ñuy def waaw wala li nga daawul woon def ndeysaan benn imaam dafa génn àdduna jabaram ténj ba jeexal benn xaritu imam bi moo gën a nekk imam bi jeune comme imam bi xaw na nekk pa benn xaritu imam bi ñëw takk jabaru imam bi yóbbu maire bi sali maire bi def fa ay jour ñëw daa di liisal kawar gi xam ngeen liisal ah mu liisal kawar gi ba mu liis peñe ko ci ginnaaw quoi daa di sol marinière bu ñu xàppati xale yi xale yi mag yi góor yi ne ko waaye yaay leen la mu ne ko damay dellu ndaw damay delluwaat ndaw waaw lu tax bi nga amee jëkkër ku mag ki lu tax delluwaatoo woon ndaw yoon saa yi noonu la yenn yenn góor ñi di def waaw commencé naan da ngay dem ay sorti fekk paa nga am xale bu ndaw mu jàpp ci sa bakkan bi bënn ko def ci buum ba ku la gis xam ne yow mii maandu woo ñépp a xam ci koñ bi yow da ngaa jéng loolu musiba weesuwul lool kër ku ko def sa kër day tas ku ko def kër gi bu amee fitna bu fi ay reyante amee yow mi yow yaa ko def te góor ñi ci bëri loolu la ñuy def moo tax gis ngeen wallahi sunu borom rek moo wax dëgg alxuraan bi ñu tiim du téere bu ñuy jàng di ko barkeerlu waaw di ko barkeeloo daf ko téere barkeelu loolu moo ñu indil problème téere bi aw dundin la wunu yàlla wàccee pour ñu xool ko di ci référé wu di ci dund amuñu droit di référé wu fenn fenn fenn loolu ci alxuraan bu fekkee ne ay jullit la loolu mooy charte bi in kuntum mu'minin bu fekkee ne ay jullit lañ daal référence baa ngi nii fii la yàlla takke sëy yi sëy yi bu amee problème fii lañ koy réglé pour sëy yi du am problème wala problème yi di néew ñun yàlla wax na nuy dundee nii kese nii kese la nii lañ war a dundee pour sunu sunu diine duñu am problème ñun ak sunuy soxna ñun ak sunuy njaboot ñun ak sunuy mbokk ñun ak sunuy dëkkandoo loolu mooy benn ñaareel mooy at targhib fil islah wa taqwa wa fi'lil xayrat mbokki jullit yi danoo war a xër ci defar fil islah defar danoo war a xër ci defar tey li garaaw ci dëkk bi mooy nit ñi ñi ci ëpp ay yàqkat lañ da ngay gis ñoo xam ne xam nañ ne lii mun nañ ko defar de mais ñoom ñoo koy gës di ko yàq di yàq ba lépp yàqu lu tax parce que ñu ëpp ñeeneen wuñ fi nit ñi jàmm waaw ñeeneen wuñ nit ñi jàmm jullit dafay xër pour defar ak targhib fil islah defar soo nekkee ci kër nga gis kër gi di waaj a tas yow lan moo la war nga defar kër gi bu dee borom kër nga nga gis am na loo xam ne day def day tas kër gi am na benn waay fa am ñaari jabar bu kenn ki ayee rek lalal xale bu ndaw bi lal mat la bi ci digg kër gi paa bi ñëw tëdd xale bi ñëw tëdd ci kawam njëge naa yow dënnu paa bi ndaw si woo ko ci biir ba mu ñëw ku mag ne ko lii ngay def day tas kër gi te yow war nga dépassé yi parce que da nga am ay doom yu mag heureusement góor gi comprendre daal di xam ne lii dëgg la bu fa am bi lalatee moom mu dem doxi ba mu xam ne laali la mu ñëw toog wala bu lalee mu indi séesam toog doo tëdd mu ne ko noonu dama sonn ci teraay bi di daw di daw fi ko ndaw si bëgg a dugal ku am kër noonu ngay def ngay daw yenn fitna yi waaw di daw lépp loo xamante ne soo ko defee dañ naan maandu woo nga koy daw waaw xam nga dara gër dana gën a garaaw nga tëdd ak sa soxna bu guddi nga génn dem néegu keneen ki yàgg fa torop ñu naan loo fi def nga ànd kii dafa dafa siburu dama koy mocc ak ay sama kalpe laa fi fàtteeg sama ordinateur bi laay seet ak yooyu bu fekkee day indi fitna nga bañ nga bañ ko def waaw nga bañ ko def yu nekk nag ngay dégg ci dëkk bi yu nekk ngay dégg waaw xam nga borom kër guy joxanteeg beneen soxnaam bu ndaw rendez-vous minuit ci douche bi ci douche bi te yow nga am nga nekk borom kër gi yooyu ñàkk personnalité góor ñi di def jigéen ñi di ko nettali di ko wax yooyu moo tax kër yi di tas looloo tax kër yi mënatuñ ko defar te ab jullit dafa war a xër ci al islah defar lépp luy defar société bi lépp luy baaxal dëkk bi lépp luy baaxal kër gi lépp luy baaxal diine ji ci loolu la ab jullit war a nekk waaye war nañoo xëy rek xër rek ci defar waaye war taqwa ak ragal yàlla mbokk yi ñun ñëpp war a xër ci ragal yàlla wa fiilil xayraat ak def lu baax su ngeen ñett yi su nekkul ci sunu diine fexewunu ba mu nekk ci ñun lu nu mën a baax suñu nekkul ñoo xam ne danoo bëgg a defar suñu nekkul ñoo xam ne danoo ragal yàlla suñu nekkul ñoo xam ne yëf jëf ju baax daf ñu yitteel suñu dund du mën a baax jullit dafay bëgg lu baax day bañ lu bon julli dafay bëgg defar chaque jour na la defar gën a yitteel ak mu yàqu waaw ndeysaan démb rek maa ngi koy seetaan ci Facebook démb ñetti muus yu ni- yu yéeg ci kaw fi ñu yéeg dafa xat ñeenteelu muus bi bëgg a yéeg te ñeenteelu muus bi bu yéegee yeneen ñetti muus yi ci kaw dañuy daanu fal force muus bi xam na ne bu yéegee yi dañuy daan mu yéeg la ngaa mu fexe ba mbëkk ñeenti ñi ñetti ñi ñu daanu mu taxaw moom kese loolu la nit ñi di def loolu la nit ñi di def mooy yàq fexe ba cere ji bu ma ci lekkul ba xëpp ci suuf ñun ñëpp ñu yem ab jullit du mel noonu dafa am benn bis benn formation bu ñu doon defal ci sa bopp keneen gënal la sa bopp waaw keneen gënal la sa bopp sa mbokk jullit gënal la sa bopp ñu defal ñu waxtaan bi ba pare yi ñu reer ñu reer ñu may ñu ndox ñu naan ñu war a tëdd ñu daan nañu balaa ngeen tëdd de ah am na benn mbokk bu doon bu ñëwoon ñetti banaana la indi woon xoolal jàkk ju fees del jàkk ñu indi ñetti banaana ci jàkk ji ñetti banaana rek ñu daal di koy jox ñetti nit wa ki ko doon joxe daal daal di koy jox ñetti ñi mu dendal bi mu joxee ñooñu rek ñooñu daal di xool li commencé lekk waa ji bàyyi bañ lekk ba pare mu ne leen yéen ana liñ jàngoon léegi léegi gars yi ne luñ jàngoon mu ne keneen gënal la sa bopp yéen de moom déggu leen dars bi yéen ñett benn banaana ñe maanaam ku nekk jox nañ la benn biñ la joxee benn bi noo waroon def nga jàllale nga bokk kooku nu muy def jàllale bu fekkente ne déggoon nañ dars bi benn banaana bi mënoon naa daj jàkka jëpp ndax lan kenn ku nekk da nga waroon bëgg sa mbokk lekk ko yow nga perte. waaye yenn saa nga gis bu dee kenn ku mel ne man day naj banaana bi daan ne nii kenn ku mu xam waaw daan xamale ko ne yow amoo sens. ah moo saas yow man maa nekk ci kanam waaw yooyu moo ñu yooyu moo ñu indil problème tey ci sunu réew mii nuy dund mooy lan ñàkk a bëggante ñàkk a defar lu baax ñàkk ñoo yitteel loolu moo tax dëkk bi dara mënu fee baax yàq rek yàq koo gis day yàq waaw ñu néew ci nit ñi ñooy ñooy ñooy ñoo ñoo bëgg lu baax yàq rek même ci kër yi sax ak oto yi xam nañ ko day gis ko defar këram ba mu rafet peinture ko nga gis ku jow fële jël këriñam wala jël pompam bind ci ba mu doyal wala sa oto sax nga gaare nga gis ku romb jël cent franc xoos tax loolu ñun ñëpp dañ koy dund loolu nag du mbirum jullit jullit lu baax daf koy yitteel jullit defar daf koy yitteel waaw ndax dañoo war a dund jàmm ci kaw suuf dañoo war a am aljanna ci kaw suuf balaa ñuy dem alaaxira mbokk yi ñetteel mooy alfurqatu bayna zawjayni in kaanat ala mabda'i al-islaahi wa taqwa uqibat xayran ajilan aw ajila léeg-léeg ay nit di ànd góor ak jigéen ñaari way dencant ñuy ànd ñoom ñaari yenn saa yi ñu ànd ba caag nga gis dootuñu mën a ànd ñoom ñaar ñooñu bu fekkente ne dootuñu mën a ànd te yiw rek moo tax ñu jóg même ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo ci lu gaaw wala lu yéex da ngay gis résultat bi après lu baax rek lay nekk waaw lu baax rek lay nekk après c'est parce que ñoom ñaar dañoo teqalikoo ci ni ko yàlla bëggee bu fekkee dañuy ànd ñu dem ba gis ne mënatuñu ànd moo xam dafa gaaw moo xam dafa yéex teqalikoo bi su fekkente ne kenn ku nekk bi ngay bàyyi sa morom baax moo taxoon defar moo taxoon nga génn ci da ngay gis ne résultat bi fu muy mujjawaat mooy lu baax rek moo fay nekk lu baax moo fay nekk waaye xoolal léegi ànd bi ñuy ànd sunu mënatu la nekk lu muy mujj mooy tàqalikoo bu ñaaw mbokk gu tas famille bu tas njaboot gu tas ba yenn saa yi nga gis sax koo xam ne nee na kii su ma duggee àjjana fekk ko fa sax damay génn allahu akbar ndax ndax waa ji taral bi mu taral affaire bi billaahi su ma duggee àjjana fekk ko fa dinaa génn te loolu garaaw na de boo génnee foo jëm waaw doo ko ne safara nga jëm de loolu ay wax la rek yi waral yooyu rek mooy ñu koy wax mooy jikko yu yàqu yi ak ñàkk xam li yàlla tëral loolu dong moo ñuy yóbbu yenn saa yu fenn ñuy wax yenn wax yu nga xam ne jaaduwul amul benn principe ci islam mbokki jullit yi ñaari aaya yooyu sunu ngoonu tey bi isnillahi tabaraka wa taala loolu moom mooy sunu dars أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما سنبرم ولن تستطيعوا du ngeen mën a maanu mukk ci àdduna waaw waaw bul sax jéem mënoo ko waaw walan tastatiu an taadilu bayna nisa walaw xarastum lii suñ borom rek moo ko ñemee wax waaw nga fekk borom kër gu toog ñeenti soxna wër ko nga ne ko yow maandu woo ñeenti ñi am na koo ci gën a bëgg loolu yàlla rek moo ko ñemee lu tax ndax yàllaa ñu xam yàllaa moom xol yi moo tax yàlla xam ne ñii mënuñu maandu waaw waaw walaw xarastum haza daalun nee na lii yàlla wax day wane ala anna al mahabba naka cofeel amrun mbir la moo xam ne tahriyun dafay forcer nit bil ajzil insaan day wane ne nit dafa tële loo moom moom moom sa bopp munoo contrôler sa cœur bi sa xol bi moom moo ko wala kenn ci ñun tey su duggoon ci néegam mu taal tele mu gis ñaari ginaar di xeex ginaar bu xonq ak ginaar bu weex mu toog di seetaan mbokk yi ndax waajooy day seetaan du am fu mu far ah te xamoo ginaar yi de xamoo fuñ dëkk xamoo ku leen moom day gis ñaari ginaar yi di cëppi cëppi rek nga toog di sa ba jàgg rek su fekkee gis nga sa xol bi day am fu mu far ci ñaari ginaar yi benn même équipe football yi sax noonu la mel boo leen xamul nga dugg di seetaan marché yi gis télé rek parce que doomu aadama moo mel noonu waxuma la ak say soxna waxuma la ak ay doom même làmb yi ngeen di gis nii am na ñu ko dul seetaan waaye boo reppee ba toog commencé seetaan rek léegi nga far léegi commencé mais kii kii kii kii waruñu ko woon boole kii kii kii dafa ngande mais non waa CNG fu ñu nekkoon gis nga far nga yaa ngi sot doomu adama la yàlla bindee noonu xol bi moo moo ko mënoo ko contrôler yàlla moo ko moom moo tax yàlla duut la baaraam ne la walan tastatiu du ngeen mën mukk attandu leen ko sax an taadilu ngeen maandu bayna nisa diggante jigéen ñi walaw xarastum donte da ngeen doon xër pour di ko def du ngeen ko mën mu ne loolu moo tax doomu aadama yenn saa yi ndeysaan mu nekk ku yàccaaral waaw waaw ci mbëggeelam moo koy forcé kama yajizu an daf'iha wa in kaana laha asbaab la yamliku l insaan nee na mbëggeel gi mënoo ko téye mënoo ko fee jële waaw effort yooyu def pour mu dañ fi tamit mënoo ko dindi ko fi tamit mënoo ko parce que yàlla moo ko fa def subhanahu wa taala parce que moo moo ko looloo tax yonent alayhi salaatu wasalaam moo ñu doon jàngal diine ji ak di ñu jàngal lan mooy maanduti ndeysaan su amee lu ñu ko joxoon ci këram mu war ko séddale soxna yi wala lu mu jënd di ko séddale soxna yi su joxee joxee ku nekk mu jox la wàll ku nekk mu jox la ku nekk mu jox la ku nekk mu jox la ba mu jeex tàkk mu ne yàlla lii laa moom def naa ko nii leneen li ma moomul nag mu ngi say loxo loolu mooy lan mooy xol bi moomu ko yow yàlla li ma moom mi ngi nii def naa ko ku nekk li ma la ci war a jox jox naa la ko ndax loolu laa moom waaye leneen li nag yow sama borom moom moo ko mu ngi say loxo loolu mooy maandute benn bis yaay Aïcha xam ngeen ne ñenn saa yi sax gars yi dañ naan soxna yonent bi yaay Aïcha la ci yonent bi gënoon bëgg mais jaadu na de jaadu na waaye même loolu yonent bi nëbbu na ko Aïcha Aïcha toog naa ak yonent bi alayhi salaatu salaam ba caagir ne ko waaye yonent di sa soxna yi koo ci gën a bëgg mu ne ko yow rek mu ne ah kon nag foog nga génn nag ci digg kër gi wax ko nag xam nga loolu xool loolu nu mu grawee loolu nag foog nga génn nag wax ko nag ñëpp dégg ko nag man ci ne ko waa dégg naa la nga góor day muus dégg naa la dinaa ko def yonent bi semaine boobu fi mu aye yëpp ku nekk bàyyeel na la benn jaaro ne la li tax jaaro bi ma jox la ko yow laa gën a bëgg semaine boobu fu mu aye bàyyi na fa jaaro ku mu jox jaaro bi wax na soxna yi ne li tax ma jox la ko yow laa gën a bëgg ba mu ayee waate ci Aïcha Aïcha ne ko keroog bi nga fi ayee waxoon nga ma ne di nga taxaw fii wax ki nga gën a bëgg yonent bi daal di waaw waaw wax nga dëgg de ne nan lan lal basang bi ci ëtt bi ñu lal basang bi mooy nañ génn jigéen ñëpp ñëpp ñëw toog yonent bi ne damay wax ak yéen te li may wax ak yéen lu ma ñor la damay wax ci yéen ñi toog fi gan laa fi gën a bëgg ñu ne waaw mu ne ki ma joxoon jaaro bi ku nekk naan nii nag ndeysaan di kii yonent bi xam lim xam kan lañ jox jaaro bi kan lañ jox jaaro bi ñëpp am nañ voilà noonu la nit nit ku mat nit ku nekk royukaay nit ku war a defar noonu lay mel waaye yenn saa yi xale bu ndaw bi daf lay poñe rek indi la ba ci diggante bi ne la waxal boobu gaal waxul xam nga tey doo fanaan nga am problème nga taal kër gi yooyu la ab jullit war a daw moo tax chaque jour doomi ndey yi bu ñu jàppee ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu jàppee ci suñu diine waxuma dun juum de ndax ay nit lañ waaye pakkatal yeeg njuumte gi dana néewu sunu borom subhanahu wa taala mu nañu walaw xarastum même bu ngeen xëroon def effort lu ngeen mën a def ngeen def ko du ngeen mën a maandu diggante jigéen du ngeen mën a maandu gis ngeen atte bu rëy ngi fii yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku am ay soxna te doo maandu seen diggante yowmal xiyaam booy dékki sa benn côté bi day daanu benn côté bi day diriiku benn côté bi taxaw ku la gis xam ne yow maandu woo woon ci say soxna ba pare yàlla mu nañu mënu leen a maandu kon fuñ jëm waaye luñ la wax sànq li mën nañ la ay mbir ñu ne ci yi nga war a maandu yooyu yan ak yan la sànq lim nañ ay mbir ñu ne ci yii lan war a maandu ci yan lan war a maandu mbokk yi ci lal bi nan maandu boo ayee fii ñaari fan ayee fee ñaari fan maandu ci lekk gi fu nekk buñ fay sóor kilo nan fa sóor kilo waaye ñee di reer mbaxal fee chaque jour boo ayee ginaar la loolu xam nga ne du maandu ci boo waxee nga ni ñee dañoo bëri ginaar mun leen a doy seen bu mu ci nekk joxeel ginaar gi parce que loolu mooy maandu ci naan gi na doy na yem kiswa koddaay bi koddaay waaw ku nekk même tisi même dàll même lal même armoire même tapis même peinture néeg ku nekk loolu moo fara nekk waaye ñee ci baraag yi ñee ci terrasse yi wala ñee ci étage yi ñii premier ñii deuxième loolu du maanduti loolu du maanduti wal muashara ak dundin wi bil maaruf ci njekk ni ngay defee fee di fa def njekk di fa noos ah boo amee ay xarit di leen fa yóbbu ñee tamit ci lañ bokk dafa yóbbu ay nit waaw lii suñ ko defee du ñu am problème lii soo ko defee sax day jafe pour ñu xam yow fan nga far mais xam nga lu gën a garaaw ngay wax sa soxna mu ne la yow yow yow xam nañ la yow kër gi ñëpp xam nañ foo far yow nga loolu loolu waaw ngay sa xëcc sikkim naan waaw c'est que yéen da ngeen a bëri kii dafay wéet la loolu du lay te yooyu ngi yi may wax ni yéen ñëpp yéen koy gis ci dëkk bi lii moo tax nag ñun julli di ñu am problème suñu borom subhanahu wa taala daf ñuy jaaral yoon ne nii la ñu bañ te li ci garaaw mooy bu ñu demee léegi ba problème yi ñëw ñu jël yëpp sëpp ko islam sëpp ko islam gis ngeen événement yi am tey ci àdduna bi ñëpp ñan la lan la ñuy wax ñan la islam la te ñi ko def yëpp xam nañ ne du lislaam du lislaam waaw wala fi ne nañ ku yar sa kuy bale muy mbëkk kenn mbëkk la waaw yëpp musiba tey yu am ci àddina bi yawut yeeg nasaraan yeeg tubaab yi ñoo ko def ba pare mu këppuwaat seen kaw léegi nag su këppee seen kaw mu ëpp seen loxo ñu dellu ci kat nekkan la ñu ne lislaam yow la fekk ñoom ñoo fekk ñoom la woon xoola daïs ni mu toll daïs Hillary Clinton moo taxaw naan ñoom ñoo créé daïs ci vidéo bu ñu bu ñu filmé mu taxaw parlement américain naan ñoom ñoo créé daïs ci Sid Sinaï bu Égypte pour Daniel Morsi affaire bi ëpp leen loxo dugg ci Syrie ah mooy li ngeen di dégg tey gis nga fu mu mujj gis ngeen day wër àdduna biy dem voilà kon chaque jour nit ñi musiba yi def suñ ko defee mën duñ ko contrôler dañ koy këpp islam fekk du l'islam l'islam xalaatul yooyu sax wala l'islam moom diine la boo xam ne nit ñi yàlla dafa am fu mu leen tëral dafa am yoon wu mu rëdd pour ñu jaar ci waaye nit ñi chaque jour dañuy déborder di wàcc ba pare di tooñ diine fii da ngay gis ko jàpp jabaram mbëkk ko ñu ne ñeenti bëñ ñu ne l'islam la waaw wala waa ji bi muy takk ma laaj leen benn laaj Sénégal bu ñuy takk sëy fu ñuy dem ci jàkk bu ñuy tas gis nga beneen bi gën a garaaw mooy bu ñu takkee cinq heures ba pare waa ji solu ji ndaw si solu ji waa ji ak ndaw si fu ñuy daje ji bu waa ji solee costume bu noir ndaw si sol robe bu weex buy direeku fu ñuy daje ji jàkka ja baa na jëm est-ce que loolu islam la est-ce que islam wax nañ solo noonu ñun ñi ñëpp noonu la ñu def fii gars yi ana sama gars yi takk jabar fi yëkkati leen loxo yi gis nga voilà xoolal yéen ci 4 heures ci 5 heures sëy bi fan la woon. ci jàkka ji gars yëpp toog ñu naan est-ce que est-ce que alhamdulilah 30 secondes ñu def ay oto pii pii léegi sax ay saret ay fas la ñuy jël kii ko dafa mel ne ay américain solal booy ay felt. mel ni ay kaboy gis nga wala gisu leen loolu man de teg naa ci bët léegi sax utatuñu ay oto ay fas la ñuy ut rangale fas yi orne fas yi comme fasu kaboy yi gars yi sol yëfu kaboy bu ngoonee bu ndaw si di sëy si ñu rangale njaga njaay xale yi jigéen ñi di di corne bul dóor bul saaga américaine lañ la indil wala dund leen loolu gisu leen ko gis nga léegi ana islam suñ demee ñooñu di dund noonu américaine lañ fa indi américaine dafa xam islam nekk fa def sëy bi moog waa ji ah sa papa ji sa yaay ji seen kër gi ñii dañoo bëri biir wi ba waa ji génn ñoom ñaar ñu dem wala problème am ñu ne islam dañ nañ islam yaa xayti mu laana mu ngoog loolu mooy sunu dundin lan lañu yàlla sàmm mbokk yi kon maandu tegi bi la islaam sant nga maandu yow borom kër ci sa kër ci say soxna fexeel nga maandu ci lal bi waaw fexeel nga maandu ci ay bi fexeel nga maandu ci lekk gi fexeel nga maandu ci naan gi fexeel nga maandu ci koddaay bi fexeel nga maandu ci nekkin wi soo paree nag li ci des ci loxo sunu borom la nekk moom moo ko yàllaa ko moom mu ngoo kon waaye boo jéemee yàlla jàppale la mu ne aaya bii mbokk yi yàlla na falaata miilu bu leen jeng kullal mayli bépp jeng walla gis nga falaata miilu kullal mayli walla boo déggee yàlla lim ne falaata miilu bu leen jeng am na ñoo xam danañ jeng waaye kullal mayli nag moom dafa ëpp waaw kullal mayl boobu ëpp na yàlla nee na bu leen jéng jéng goo xam ne ku taxaw ci digg kër gi même dëkkandoo yi dëkkul ci kër gi xam na ne paa bi fii la far wala waa ji fii la far loolu moom musiba la loolu la yàlla di tere ñenn saa yi ñenn ñi duñ yem sax ci jéng dañuy dem ba bàyyi ndaw si lii yàlla di continuer aaya bi fa tazaruha kal muallaq ndeysaan gisoon naa kër goo xam ne boroom kër gi yàlla dafa def kër gi bi mu koy tabax dafa def saal bi ci digg bi néegu aawo bi nekk nii buntu néeg ubbeeku ci saal bi néegu ñaareel bi sës nii buntu néeg ubbeeku ci saal bi mais bi mu amee aawo ko problème xam nga nu mu def dafa jël benn bant dugg ci saal bi daal di daaj buntu buntu aawo bi nga xam ne léegi dootul mën a dugg ci saal bi mu daaj ko ba boo fa duggee di ngay gis bant bi nii ñu traversé ko daaj fi pont daaj fi pont ci miir bi nga xam ne bunt bi dootul ubbeeku léegi nag ñu bàyyi buntu a ñaareel bi muy ubbeeku loolu kenn du la ko nettali boo duggee rek gis lii sa xel dina la laaj waaw lan moo tax bunt bi ñu daaj ko ba borom du dugg ci saal bi sa xel day posé question boobu loolu musiba la loolu mooy mooy néeg bi pare naa fi loolu la yàlla naan bu leen def loolu bu leen takk jigéen ngeen jéng jéng goo xam ne da ngeen dem ba bàyyi ko ci kër gi mu mel ne yére bu ñu wékk loolu musiba la mu mel ne ku ñu fase du am ay doo ko jox dépasse moom daal su mu nee lekk mu lekk ah boo yekkee daal woo ko mu lekk bu lekkee baax na bu lekkul moo xam loolu ku ko def rek dugg nga ci li yàlla wax fala tamilu kullal mayl ab julli du def loolu kenn du jéng yenn jéng yooyu sunu borom ne wa in tuslihu su ngeen yéwénalee wa tattaqu ngeen ragal yàlla ngeen moytu fa inna allaha naka yàlla kaana gafuran rahima fa inna allaha naka yàlla kaana mustadeñ gafuran di jéggale rahiman di yërëme sunu borom kuy jéggale la kuy yërëme la mbokk yi mu ne aaya bi faqad dammat dammanat xaqiqatun kubra aaya bi ay mbir yu rëy la ëmb wa hiya ajzu zawj anil adl li gën a rëy ci li mu ën ëmb moom aaya bi yàlla di ñu jàngal mooy tële borom kër ci maandu ci bayna zawj diggante ñaari soxna waaw loolu la njëkk ëmb mu ngoog tële borom kër ci maandu ci diggante ay soxna bayna zawjaat yi ci diggante ay soxna wallahi soxna yi nga xam ne ñoo ngi ci keppaaram fa mahma harasa alal adli loo xër xër xër bëgg maandu sa xol bi moom du dem waaw munoo ko de waaye mu ne mbokk yi wal muraadu bil adli huna fil hubbi wal jimaa maandute gi mooy ci mbëggeel ak sëy yii moom mu ne mu ne munoo cee maandu chaque jour ci soxna yi am koo xam ne di nga préféré tey jii bu doon sama sago tey jii ci moom laay fanaan sa xol bi day day wax loolu bu doon sama sago tey jii néeg bii laay fanaan bu doon sama sago tey jii moom mooy aye bu doon sama sago tey jii ci moom laay nekk chaque jour sa xol bi day def loolu loolu nag yàlla moo la ko bindee mënoo ci dërëm waaye lan ngay def mooy da ngay def effort ba xol bi foofu muy féttéerlu di fa jëm su fekkee ay bi amoo ko fa nga bañ fa dem loolu rek la moo tax yàlla ne mënunoo maandu mënuñu leen yemale mënu ko mënuñu ko donte dañoo xër nañ def ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam defoon bi mu joxee la mu joxee ba pare mu ne allahuma haza xasmi yàlla day lii mooy sama séddale man fii ma am liku ci li ma moom yow yàlla falaata lum nii bul ma yedd fii ma tamliku wala am liku yow yàlla ci li nga moom ma moom ko waaw waaw yonent bi bu séddale woon ba pare danaan yàlla man lii laa moom def naa ko yow nag yow yaa moom li des loolu nag man bul ma ci yedd ndax loolu yaa ko moom man moom ma ko ngay yonante bi dafa maandu woon maandu maandu maandu ci ay soxnaam ba keroog bu muy sukuraat ci seen ay su fanaanee néeg bi après ci suba si nu muy def day woo saxaaba yi ñu jàppoo ko ne mu ne leen tey fii la aye ñu jàppoo ko tànk yi di diri ko ba dugal ko fi mu aye mu xam ne tey fii la aye ñu lalal ko mu tëdd bi mu demee ba mënatu ko ci dara nga xam ne mënatuñ ko yëkkati ndax metti na lan la wax gaa yi woo leen ma soxna yi ñu xool kan ci ñoom ñooy d'accord ma nekk néegam ba wér soxna yi daan ne ko nekkal néegu Aïcha lu tax ndax Aïcha moo gën a nekk ndaw Aïcha moo leen ëppoon doole moo dese woon ndax ñoom ñëpp bi mu leen di takk ay mag lañ Aïcha kenn moo ci nekk xale bu ndaw moo tax ñu ne ko nekkal néegu Aïcha parce que moom malaat kuy nekk moom da nga koy mënal dara ah wala nekk ak malaat boo xam ne yow mënoo ko may sax ndox wala mënoo ko yëkkati kon yow amu amuloo ko njëriñ moo tax soxna yi bi yonent bi tollee foofu ndeysaan nga xam ne dem na dem na ba mënatul mu ne nag léegi xool leen ba néeg laay nekk ñu ne ko nekkal néegu Aïcha loolu moo tax yaay Aïcha daan ndamoo mbir yi daan wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sama néeg la faatoo ci sama ay la faatu ci samay pooj la faatu balaa muy faatu samay tuflit ak tuflitam jaxasoo nañ ci socc bu mu ko doon yéen wala mu daan ndamoo loolu yonent bi alayhi salaam mi ngi faatoo néegu Aïcha loolu moo tax ñu baree bari di wax ne yéen da ngeen di wax jàkka kenn du ci suul nit yonent bi ci jàkka ji lañ ko suul déedéet soo demee Medinatu Munawwara fi ñu denc léegi yonent bi foofu mu nekkoon néegu Aïcha yonent bi néegu soxna yi dañoo rangoon loolu moo tax nga dégg ñu ne Bilaal su noo doon asalaatu xayru minan nawmi rek day gis yonent bi génn daal di dugg ci jàkk ji ndax buntu néeg yëpp dañoo ubbeeku ci jàkk ji yonent bi alayhi salaatu salaam faatoo néegu Aïcha foofu lañ ko denc kenn denc lu yonent bi ci jàkk ji léegi nag jamono bi ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy yaatoo jullit di gën a bëri ñu yaatal jàkk ji di yaatal jàkk ji di yaatal jàkk ji ba léegi ni borom xam-xam yaa ngi ci sax de naan léegi bu ñuy yaatal jàkka ji nañ ko yaatal beneen côté bi bu ko kenn yaatal la ci néeg côté bi armée li nekk côté bi fi ñu suul yonent bi ndax foofu bu ñu ko yaatalaatee rek fi yonent bi tëdd dugg ci jàkka ji te léegi benn côté bi la nekkee nii la nekkee benn côté lu tax loolu mooy ku dee kenn warulaa suul ci jàkk ku faatu kenn warulaa suul ci jàkk waaw yonent bi kenn suulu ko woon ci jàkk ji jàkka jee ko fekki mais moom fekki siwul jàkk ji ñeneen ñi dañ naan waaw soo leen ne kenn du suul nit ñu ne la waaw yonent bi mu ngi ci kaaba gi ba pare nga naan lim nekkul màkka de kaaba gi lan ma fa nekk xajaratul aswad kaaba gi kenn suulu fa nit kaaba gi xeer bu ñuul bi moo fa nekk ak ñetti bant yu téye piey piey bi ci kaw lii dal bi ñetti bant ñu ko téye amul leneen ci biir foofu ba pare ci biir li ko wër nii ci biti li ko li ko wër lan la ci biti li ko wër lan la ci biti li wër kaaba gi ay birig la yu ñuul ci biir moquette bu verte la vert blanc la ci biir ci biti moo nekk noir boobu ngeen di gis ak sër biñ fa def ah ak bunt bi voilà mu ngoog waaye amul leneen nit nekku yonent bi Madina lañ ko denc te biñ koy denc fan lañ ko dencoon néegu yaay Aïcha loolu moo tax muy ndamu ci soxna yi naan leen man li ma am kenn amu ko yonent bi ci sama néeg la faatoo yàlla dimbali na ma bi muy faatu ci sama ay la maa aye woon yàlla dimbali na ma bi muy faatu ci samay tànk laa tàllal mu teg ci bopp bi yàlla dimbali na ma bi muy faatu sama tuflit ak tuflitam jaxase woon nañ kon ay soli moom kenn amu ko kon du hasard ah yàlla subhanahu wa taala defoon ne jigéen ñi danañ d'accord ba jox yaay Aïcha seen kàddu yonent bi mujjee néegam parce que loolu la yàlla namoon ba pare yonent bi mu faatoo ci biir néegam lañ ko denc radiyallahu anha wa ardaha sunu borom subhanahu wa taala mu nañu na ngeen maandu waaw ci ay wi na ngeen maandu ci koddaay ci dëkkaay ak dund bi na ngeen fexe ba bu leen jeng falaa tamiilu bu leen jeng kullal kullal mayil fa tazaruha ngeen bàyyi ndaw si kal muallaqa bu leen ko def de waaw fa tatrukuha ngeen bàyyi ko kal muallaqa wa hiya bil muzawaja wala mutallaqa takkoo ko fasewoo ko loolu gaa yi di wax yenn saa yi nga gis jigéen joo xam ne kenn takk ko kenn fasewu ko ñu ngi ko bàyyi ci kër gi rek mu toog pare saa ko oseeraak ah du loolu ngeen di wax naa ko noonu mbiyotoon loolu musiba la ku def loolu rek am nga bàkkaar beneen bi boo yoree jabar mu génn sa kër dem demal nga yónnee ñu jëli ko suñ demee mu bañ fexeel nu mu ñëwee su bañee bañ bañ bañ laajal sa alal jang ci defoon wala nga fase parce que mu dem nekk foofu ay at doo yónnee joxe woo dépasse joxe woo dara ba pare ne du ma ko fase keneen du ko takk loolu àq la bu rëy boo yor sa kaw baat te léegi loolu moo xew ci suñu jamono foofu laa koy bàyyi kenn du ko takk nekk foofu di tumaraanke yenn saa yi sax ndaw si di yónnee nañ ma fase na ma fase mu bañ waaw yenn saa yi bu dee waaj ab séeréer la mu ne li ma ci defoon nañ ma ko fay loolu tamit dagan na loolu la ñuy wax ci islam simmeeku ah simmeeku am na ci islam fekkee ne bëggatoo sa jëkkër nga jox ko lim la joxoon nga libre mu dem uti keneen nga uti keneen yàlla nee na wa in tuslihu suñu yëwénalee baaxal wa tattaqu ñu ragal yàlla fa inna allaha naka yàlla kaana mustadañ gafuran di jéggale rahiman di yérëme waaye wa in yatafarraqa ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo allahu akbar waaw ñaar ñu doon ànd ñu dem ba yëg ne ñoom ñaar ñi mënatuñoo ànd waaw ñoo tàqalikoo tàqalikoo bu rafet su ko defee ñoom ñaar yuxni loo yàlla dina wërsëgal kullan kenn ku nekk ci ñoom min siatihi ci yaatuwaayam kenn ku nekk yàlla dina indil mbir feneen ku góor ki mën na am am beneen jabar bu baax ku jigéen ki mën na am beneen jëkkër bu baax loolu day am gis naa ñaar ñoo xam ne sëy nañu fukki at ak quelque amuñu doom bi ñu tàqalikoo ku góor ki am jabar ku jigéen ki am jabar waaw am jëkkër ku góor ki dafa ma téléphoné ne ma suba laay ngénte ku jigéen ki téléphoné ma ne ma ginnaaw suba laay ngénte naxuma leen de parce que premier sëy bi maa ko defoon waaw kenn ki Mauritanie la ma woowee ne ma suba laay ngénti ci ginnaaw suba si keneen woo ma ne ma ginnaaw suba laay ngénti fii ay numan ah kële ngeeg am ay doom léegi kële am na ay doom te ñoom ñaar dem nañ ay fukki at mënuñu am doom mais bi ñu tasee am nañ doom kon ku nekk am na doom feneen ma loolu la yàlla naan ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo kenn ku nekk yàlla dina indil yaatuwaayam waaye lan la yàlla bëgg mooy bu ñuy tàqalikoo dañ tàqalikoo ci tàqalikoo ay bu rafet fa imsaakum bi maaruf aw tasrihum bi ihsan waaye tàqalikoo boo xam ne ay kurpeñ la ay bëñ yu damm bakkan yu toj bët bu tuuru wala loxo bu damm wala tribunal ah ñuy dagg salaire waa ji nga dégg ndaw si naan ñaw gis naa borom kër goo xam ne dañ ko yóbbu tribunal mu ngi doon liggéeyee ci jamono benn société bu tudd Soadip dañ ñoo xam société boobu fii waxuma paa yi nag waxuma paa yi de Soadip lan lañ doon liggéey Sénégal ah ah mbalit lañ doon doon ni ñoo ñoo yoroon mbalit mi góor googu bi mu tàqalikook soxnaam soxna si yóbbu ko tribunal dafa démissionné chauffeur la woon Soadip mu démissionné ndax salaire bi ñuy dagg weer bu dee bi di ko jox waa kër gële mu démissionné uti taxi di dawal boo ko mën a ñaw kenn du lekk sama xaalis kenn du jigéen du lekk sama xaalis ba xoolal loolu allahu akbar ba léegi am na ñu koy def waaw yal na yàlla dimbali yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp mu ne wa in yatafarraqa ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo ñoo doon ànd ba ci yàgg mënatuñu dem ay jafe-jafe am na problème am na mënatuñoo ànd ndeysaan bu ñu tàqalikoowee yuxnillah yàlla dana wërsëgal kullan kenn ku nekk min saati yi ci yaatuwaayam wa kaana allahu yàlla mësta dañ waasi an di yaatu hakiman di xereñ allahu akbar gis nga chaque jour ma wax leen ne aaye buy jeex yàlla lim ko tàmbalee la koy tëjee allahu akbar xoolal wa in yatafarraqa yugni llahu kullan min min saatihi yàlla tëje aaya bi wa kaana allahu waasian xam nga ki sëy fukki at amul doom mu tas dem fee am doom kële amul am jabar amul doom mu dem fee uti am doom ñooñu am nañu yaatuwaay wala amuñu yaatuwaay te am na am na ci dëkk bi leneen ak leneen waaw ñeneen ñoo xam ne bi ñu amee yeneen jabar la seen xéewal ubbeeku ñii bi ñu amee yeneen jëkkër la seen xéewal ubbeeku parce que yàlla moo yor mbir mi xëy na fii dafa tëju woon kon ànd day am mais tamit nañ bàyyi xel ne yenn saa yi tàqali ko da ci am waaye yàlla bëggu ko nag moo tax mu naan nañ defar balaa tàqali ko di am xam nga vingt ans de mariage sama benn xarit ñoo nekk ndawoon xale mu tas bi mu tasee ma yëg ko mais bi ma ko yëg fekk yéex na c'est trop tard bi ma demee di intervenir ndaw si ne ma idda bi jeex na mu nekk takkaata ci des te fas yéene wu ma ko ma ne ko non bul def loolu 18 ans de mariage mu ne ma 18 ans de souffrance waaw ma ne ko mais man mosuma ci yëg dara mu ne dama la rusoon ñoom la ko woon wax mënu ma woon ñëw di la wax kii li may def ba léegi nii sëy bi kenn takkaatu waaw loolu la jullit yi war a moytandiku ku yoral jigéen ku yore jigéen jigéen amul doole kuy yërëm kuy suturaal da nga koy aar da nga koy toppatoo da nga koy protéger kenn du yore jigéen def ko mbaam def ko mbaam waaw jàpp nga ne yow sa aajo rek nga ci war a régler après jeex na non nga war a xool doom yi ñu ci am te sa doom yooyu ay nawle lañ ñu bare bari ci ay xale tey ñu ngi révolté ci seeni wayjur yu góor wala ñuy révolté ci seeni wayjur yu jigéen quelque part njuumte gi dafa nekk ci yaay ji wala mu nekk ci papa ji kon yooyu mooy ay mbir yoo xam ne mbokk yi nañ ci bàyyi xel suñu toppee njàngale alquran topp suñu diine topp sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du wax ne duñu am jafe-jafe ci àdduna parce que ay doomu aadama lañ waaye mën naa néew te gis ngeen li may wax ci chaque chaque jour alxuraan du pour ku dee wala aaya yi ñu jàng la la ci ku dee am pour ñan la li ma doon wax léegi nii li doon jàng sànq ba léegi timis ak léegi fan lañ ci gis ku dee buñ bàyyee ba waa ji dee ñu ñëw naan ko walan tastatiu an taadilu bayna annisaai walaw xarastum fekk waa ji daa dee ba njëriñ laa wate ah kon li yunzira man kaana hayyan pour ñu waar ci ñuy dund la ba ñu xam fu ñuy teg seen tànk alxuraan pour lool la dan leen yàlla woon dëgg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu boo amee ay question insha